li ma gën neex mooy sama diggante ak ñoom Ami Ndour waa guy muri Daaru ndax ñoom biñ ma jàppee ba léegi bàyyiwuñ ma euh, campagne bi dafa jot am ñu def ci proximité fi ànduma ci woon de xarjata ànduma ci woon mais bi ma ñëwee Nyom bi ñu yegsee ñoom dañ leen a recevoir dalal leen mais xam nga leen wax ñun de bu fekkee faat faati ngeen àndal ñu wax ak yow mais bu ngeen àndul ak faat faat du ñu wax ak yow bayaati baa bi ci boppam moo ma woon ca ëllëg sa ni ma fa ñu nekkoon nekkoo fa mais yaa fa gën a présente te mënoon nañ ne faat yi nekku fi duñ ma tudd loolu mooy wane seen góor ak seen dëggute ak seen jàpp biñ ma jàpp gis ngeen yére yi ñu sol billaahi wallaahi wa taalaahi ñoo ko jënd seen bopp joxuma leen un franc pour ñu jënd yére ñu ngi nii bi ma ñëwee dama tiit bi ma ne dañoo nuróole dama tiit te ci seen kees lañ ko jëlee ñoo ko ñax ku bari nag day woote joxe mbubb waaye seede naa sama kanam borom ne joxuma leen dara ñu ngi nii toog moor mi moo ñëw ni ma ñi togg nañu ñaari mbana añ ñu ma dërëm billaahi kon ñii seen taxawaay dafa dëggu sama diggante ak ñoom ma leen di seddee ci kanam mbooloo mi leen jàpp naa leen ba faw te duma leen bàyyi taxaw buma mana tahau, buma taxaw bu ma taxawoon benn dinaa ko taxaw fukk ci seen wet lii du tey xëy na ngeen ma 8 mars dama toog kii ma ñoom Amindou dañ ne la bëgg sargal 8 mars ma ne ko 8 mars mu ma waaw ma ko de kon kendo du ko kon nangul nalen lo, loolu richu rëccu ma lu ma leen nangulee bés parce que sigil ngeen ma sagal ngeen ma ci sama ay kanamu ya yàgg ngeen ma sagal ci kanamu politiciens fuma fu ma nekkul Cheikh Issa day ni ma man de dama jaaxle koñ bu ma dem ci li may proximité il faut ñu tudd ma faat faati ça que faatu yemoo coose man yemuma coose dama tàllal sama loxo ñëpp ñu bare nag wuy si ma ci loolu gis ngeen ñiy toog fii ñëpp ñoom ñëpp bokk nañu coordination dafa am ñu ci bëri amuñu whatsapp mais fu ma leen woo ci coordination bi nee nañ ma li ñu wax sax fi leer na ñoo ki yow ba faw donc lu may yëngu lu ma nekk ñu ngi ci biir ma di leen gërëm ci di leen sant ni ma leen ko waxee li doon def nag ci formation danaa ko yokk lu doon def ci financement danaa ko yokk lu ma doon taxaw ci ak tabaski danaa ko yokk ci kantanu yàlla bi di 8 mars ñu ciy célébrer jigéen yan jigéen la ñuy célébrer jigéenu jàmbaar yi nga xam ne dañu nekk ay jigenu fàkk tëdd di liggéey suba ak Lalla Fati wax na ko yeewu 4 heures du matin e, tëdd minuit ngir lan ngir kër ngir lan ngir jaboot kon ja ngàcce ngaalaamaa yéen li nga xam ci lañu war taxaw ndax li gouvernement ak état def ci jigéen ñi ndax doy da wala doyul bu célébrer tey dañuy war taxaw def euh, taxaw setlu ba xam ndax ñu ngi gis suñu ba wala ndax am nañu ay avancé booba ba léegi yokkute ndax am déet ndax travail taxawaayu président la république ci wetu jigéen ñi naka la demee naka lañ ko naka lañ ko jàppee ak naka lañ ko gisee loolu mooy solo bés bi tey fu ñu waxee président mu ne automatisation des femmes jigéen ñi dañoo war a mënal seen bopp te pour ñu mënal seen bopp foog ñu jàppale leen jàppale bi mooy lan jàppale bi mooy financement jàppale bi mooy formation jàppale bi mooy suivi topp leen ba keroog ñuy mën a demal seen bopp jigéen ñi nee nañu dañoo sonn ci cent mille francs wu financement cent mille francs cinquante mille francs du financement kenn mënu cee liggéey fay ci bor am ci bénéfice gi ci sa bopp dañu bëgg programme yoo xam ne ak projet yoo xam ne jigéen ñi amaat ko mu gën a dëgëraat ci ñoom deer a ngi fi fonsi ba ngi fi yeneen a ngi fi mais dañoo bëgg ñu gën a dëgëral taxawaay bi gën a yokk seen loxo ci li ñuy defal jigéen ñi. ñu ngi ñaan bu baax le président la république taxaw na jigéen ñi ci wàllu santé taxaw na jigéen ñi ci éducation taxaw na ci wàllu développement bu nekk pour jigéen président la république taxaw na ci loolu. lu mu wax mu ne jigéen ñi sama programme jigéen ñi ak jeunes yi jigéen ñi ñu ngi koy delloo njukkal. waaye di ko tàllalaat loxo nag wax ko ne ko na dolli jigéen ñi war nañoo am ay poste responsabilité base bi mooy liggéey jigéen ñi war nañoo gën a gis seen bopp ci politique bi jigéen ñi war nañoo dem ci instance yu mag yi jigéen ñi war nañoo gën a seen taxawaay assemblée war na gën a yokku parité bi dem nañ ci am nañu ko def am ñu ko deful mais parité bi dañ ko war a def parce que loolu mooy suñu cër dañ ko xeex ba fii kon dañ ci war a jàppale ba mu gën a taxaw gën a dëgër jigéen ñi gën a gën a gis seen bopp ci politique bi ñuy def nit ñi dañuy ànd dafa am loo xam ne dañ koy faral di wax bu ñu jógee ñu ne waa ñi am ndombo tànk yi nañ leen woo mais ñi am ndombo tànk yi ñan ñoo leen jàppale ci suuf ba ñu am ndombo tànk base bee leen jàppale kon nañu gestu base bi wax ak ñoom taxaw ci seen i soxla bañ a jël mbir mi féetale ko benn boor jigéen ñi takku nañu am nañu passé pour liggéey am nañu ay projet am nañu ay idée ay jàmbaar lañu nañ leen jàppale jigéen bu soxla woon tey suuf bu ñuy séddale góor ga lañ koy jox bay jigen lolou warul li jigen ñi mën ci ci tool ak fenen ak fenen, dañ leena wara jox mu mat kon tay ji am lu am lu ay ak manam amna mais dañuy ñaan mu renforcer automatisation des femmes moy nañu renforcer financement bi nañu renforcer euh, formation yi nañu renforcer sen taxaway bi ñu taxaw ak Sénégal bu ñu ci taxawee bu ñu jàppalee jigéen ñi parce que boo jigéen ñi li ñuy voté moo ëpp nombre bi di góor ñi di voté fii ku fi falu rek jigéen ñoo la fal ku jóg te àndoog jigéen ñi doo jàll kon jigéen ñi nañ leen gestu dolli leen gën leen a jàppale ñun ñaa ngi am na violence yu ñu def ci jigéen ñi nañ ko wàññi jigéen ñi ñu ngi leen di rey ñu ngi leen di dóor ñu ngi leen di métatal te kër yi bu ñu waxee jigéen ñee joxe dépense nañ waxante dëgg jigen ñi ñooy yóbbu xale yi école jigéen ñi ñooy nyonyo résultat yi école jigéen ñi ñooy yóbbu dispensaire jigéen ñi ñooy wasin jigéen ñooy ëmb ñu ci bëri bu ñu yeewoo bu ñu deful dépense mën naa am du sotti te kenn déggu leen ñu ngi ànd ak seen sac ak seen sutura ñu ngi ànd ak seen i yu feebar kenn du xam ñu ngi ànd ak seen jëkkër yu tële kenn du xam ndax seen jom ak seen ngor ñooñu dañoo mérité ñu gestu leen gën leen a gën gën seen ca kaw Euh, li ñu war a mën a wax ci 8 mars bare na trop waaye dama koy tënk fii parce que ñi ma àndal ñu ci bëri war nañoo dem defari reer mais damay wax ne kontaan naa 8 mars déwén yàlla balaa ñëw fekk ñu gën a am yeneen capacité yeneen financement ak beneen taxawaay bu gën a dëgër. sant naa leen gërëm naa leen gërëm bu am ku mu commencé mais amul fu mu yem parce que li ngeen def nii tey nag du lu ndaw de lii ngeen def tey jii ci 8 mars bii du lu ndaw dañu ñaan yàlla comme ni ma ko waxee. 8 mars déwén balaa ñëw yàlla nañu gis coppite bu gën a rëy ak taxawaay bu gën a dëgër ci seen biir muy seen wàllu financement seen wàllu yokkute seen wàllu liggéey ak seeni projet ak ay programme yi mën ngeen gis seen